moom nag moom mooy boroom moo am mérite ba moo ca nekkoon di ca sonn démb ak tey ku ciy def itam da nga ko ciy dimbali rek topp ci ginnaawam jàppale ko ci waaye yaakaar naa loolu moom dana ko neex dana ci soxla wéetal jort naa ne lu ci am itam ñu delloo ko sag ba rek te ñun ñu soxla ci rek ngërëmal yàlla le ndax njabootu sëriñ bi ci liñ xam ci góor ñi ñi ci ñi ci xam moo ci mag ñi nga xam ne dañ leen a xam moom moo ci mag kon bu yàlla dogalee mu ne fii. di suñ mbokk ñu dem ba suñ borom def ci xel yi ñu xeñtu ko ba war ko euh, dundal loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax kon jort naa ne bu ngeen demee ci suñuy daal maa ngi leen ci yónni yóbbante ab nuyoo waaye jort naa ne jéegu yi moom dana ko neex lool ñu ànd caag moom ba mu yëg ni wéetu ci fi mu ne jort naa ne bis bu ñu ko waroon doon defal ak ñaan yi donc goo xam ne dañ faa rajee di ko fa wàccee rek maanaam téereb alxuraan bokki boppam yi def ko ànd kook moom moom nga xam ne maanaam mooy borom barab ba jort naan loolaa gën a yel te mu ëpp solo waaw te jort naan loolu itam mu ngeen bu ngeen ci waxtaan rek moom dana ko gën a soññ sax moom te dana ko neex loolu itam Cheikh Modou Yadali ñu ngi lay siyaare di la nuyu Mbàkke Balla ñu ngi lay siyaare euh, di la jox sa wàccuwaay di la wax euh, kuréel bii fi ñëw nii tey di ay bokk di ay taalibe liggéeyal sëriñ bi rek tax leen a jóg ak liggéeyal seen ak bokk fa tabaarakallaa mbir mu nekk lañ ca féete la ci seen wàll dañ koy bëgg a béy ba mu mat ak mbooy bañ caa am yàlla dogal nag nu am cër ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul cër booba nag ngay bunt bi ci nun moo tax kuréel bi jóg tey ànd ñëw siyaare si la bëgg laa dénk seen kàddu incha allah bu ko yàlla dogal itam luy seen jëfit luñ ca ñoo ànd ci ak yow euh, kuréel boobu nag njiit laa ngi nii di sëriñ Kàbb Sill mooy daay mooy président daayira bi ñuy wax Sil Silatu Rahim Silatu Rahim nag euh, am am réew la weesu na benn dëkk ndax mboolem dëkk bu ne ci suufu Tayba askan woo sill ci maam Maxtaar ma dem ba jëleen ñoom ñëpp benn ca ndaw ya ñu jiital sëriñ kàbb mii mu yore ko waaye nag ci ndigalul mag ña nag mag ña sëriñ Ousmane Sill moom sëñ Mérina Sill mooy xelifa bu xalifa ahlu Tayba gépp tey ak ay rakkam ak mboolem ñi mbokkal Tayba gi rek kenn ku ci ne ah, la nga magee sa moroom xam nga ko la nga bokkee moom xam nga ko Euh, kon tabaarakallaa loolu ñooñu bokk yooyu ñoo fi ñëw tey bokk yooyu nag ñëw gi ñu fi ñëw tey dañoo am cër ci sëriñ Tuubaa bu mag muy Cheikh Modou Yaddaali sa turandoo muy jëmm joo xamante ni ñi am luñ ci settantal dañuy wax ni mooy taaw Xaadimu Rasuul mbaa bu ko doon ti ña ko ci mag bariwuñ yaakaar naa ni waaw yàlla dogal nag mu làqu cëg tut tànkam waaye mbirum sëñ Tuubaa moom mag gaak ndaw gaa ci yam lépp rëy fa suñu borom ndax suñu borom ko ne tollul am ca wàll soxna Marème Balla mi waajuram di doom ci askanu Taïba Ahmadou Marème Balla ko jur sil ca Taïba xëy Ahmadou Marème Balla nag ah maam ma Samba Asta ko jur ma Samba ma Samba Marème ma Samba Marème maam Maxtaar ah, ah, ah, Aminta Touré ko jur Maxtaar Aminta Touré ku ñuy wax maam Moussa ma Seer Fatma ànd laa ko jur ma Seer Fatma ànd la nag yàlla dafa dogal moo jur juróomi mag ñi nga xamante ni ñoo yokk yaatu askanu ba yokk daara ak alxuraan. mu mel ni dama ko daan wax nag ni jàngu Tayba tàkk nañu toll ci ñeenti téeméeri at ba dugg ci juróomeel bi Serigne Touba soo ko woote waaye bi Serigne Touba wootee dañoo boole lañ xamoon ak lañ amoon ak ñañ amoon lépp Serigne Touba di déglu ndigal di ko laaj te it Serigne Touba bokk ak ñoom ci bokku jaxasoog deret ndax bàjjanam Asta Mbakke bokk ak Momar Anta Sali lay ak baay foofu la wàcc jur fa Masamba Asta kooko bokk na ca kasañ bu ka barakalaa kon kon dafa mel ni mbokk yii fi ñëw tey ay taalibe lañu di ay doomi soxna de ay mbokk ci deret waaye wut yàlla sëriñ bi dong moo leen tax a jóg président bi nag a ngi nii di sëñ euh, Kabou Sill Kabou Sill mooy suñu président daayira Sila Torahim di majlis bu mbokk koo xam ni mbokk yëpp ko bokk ànd ak mbokkam sëñ Modou Boussa Sill mii nga xam ni moom xam nga ko xamal nga ko sa bopp ànd ak euh, sëñ Mahamadan Sill mii ci bureau bi ànd ak euh, sëñ Modou Sill mii ñu ko wax Modou Tayba bépp muy mooy mooy muy bokk ci secrétariat bi ànd ak sëñ Balla Tayba xay mii sëñ Balla mii nag euh, cellule bi fi Touba mooy ki ko jiitee moo koy doxal incha allah ci kàddu yàlla mook sëñ Maxtaar jobbe mi ci secrétariat bi Maxtaar Jobe mi moom mi ngi Touba ci cellule bi fi Touba lan féete lu ñii nii waaye baraka la kon loolu mooy li ma la bëgg na leeralal ci nuyoo wax la ni la bokk yi de mën naa ni mën naa yëpp ñëw nañu. ndax ñi fi jëm yi fi nekk kenn ku fi ñëwoon képp ñi des ñëpp mën nga leen a woo téléphone ni leen maa ngi fi lii laay dox ñëpp ni waaw barkalaa kon nag bi ñu àndee dëkk bu ne nga mën ni diw mi ci pénc sàngam la bàyyi ko bu nee tubaa bu nee Ndakaar ak fu mu mën a nekk tey nekk na ci kuréel bi ñu ànd ak ci genn kàddu toog ci sa kanam di la tatagal di ñaan nag liggéey bu rëy bee nga xam ni tàmbali nga ko ca barabu sa turandoo euh, nu dem ba gisal ko sunu bopp suñu borom kàttal na nu ba nga mën ko àggale fa nga bëgg mu àgg fa ten bokk ci say jëwri ñi nga xam noo ko ànda yow di ko liggéey ah, kii nga xam ne moo yore appareil bi tam Serigne Fallou Sil moom tay ba googu la dëkk bokk ci bokk yi barakalaa kon noo ngi dal eh, siyaare ka nag di wax nag ndigalul kàddu yëkkati nga xam ni yëkkati naa ko kat ci ndigal laa ko am ndax man mi ànd na ñoom waxaguma la sama bopp nag waaye mel naa ni jàppal dag ma xam bu ma rek ki bëgg fàllu laa rek bëgg fàllu di bëgg fàllu sëñ fàllu ma barakalaa man Balla Sàmba la tudd di ndongal Taïba ak Touba ànd ak samay bokk nag ñii ñëpp nag ku ma ci mag it ma ngay sama sëriñ ku ma ciy bàyyi ci ngay sama sëriñ noo ànd nekk ci loxol sëriñ Tuubaa nekk ci sa kanam yow mi ne Cheikh Amadou Fadal Cheikh al Khadim Khadim Rasul barakallah kon ngi noonu. sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la ziara ci tulu Silat Rahim maanaam mbokki ba yi nga xam ne dañoo boole seen bopp di liggéey sëriñ Tuubaa tey jokk seenu bokk di ko jaamoo yàlla di liggéey sëriñ Tuubaa di ko addee di ko addiyale di la bu baax di ñaan suñu boroom dolli la tawféex defal la gudd fan ak wér-gu-yaram di wax ne am nañ mbégte lool ci sab liggéey am nañ ci mbégte lool ndax li wolof di wax naan danga noo defal loo xamante ne mënuñu ko ndax barab beekat bu nekkoon ba tey jii ñu bëgg koo xam fu mu toll wala fu mu kii dana jafe lool ci ñun kon bu ñu ñëwee fekk nga def ci liggéey bu rëy bee yéene ju rëy jee dañ lay ñaanal yàlla na la yàlla kattanal ba nga àggale ko fa nga bëgg mu àgg fa mu bàyyi la fi ba nga gudd fan lool tànd ko wér bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke sëñ Tuubaa daraje Cheikh Mamadou Fadal mbokki tay ba nag ñoo ngi nii tey ñëwoon doon la ziyaara ndax mbégte bu ñu am ceew ak kontaante gu ñu am ceew ndax ñun amuñu lu sëriñ Touba ndax sëriñ tubaa radiyallahu taala anhu bi mu feeñee jamono ñëw na fekk waa Taïba xaj na comme ni ko sëñ Balla Samb waxee ñu nekk niti alxuraan nekk ay doomi soxna waane biñ bi mu feeñee moom dañoo fob seen yëpp jébbal ko ba tax na bi nga xamante ne bii euh, ak taalibe sax du nu may ñu waxe ko noonee waaye bi mu tolloo ci maanaam bëgg ay dëkkandoo fa la jëkk a yable ne nañ ko fa wutal foore joo xamante ne day dunde aw ñaqam ñu daal di ñëw tay ba xay foofee ci kër sëñ Ahmadou Marème bal fekk fa soxna soose mu tudde ko way juróom wu jigéen fekk mokkal na alxuraan ci diir diir bu gàtt boobu at yu néew la am ñu jox ko ko moo ci la seex Muhammadul Yaddaali feeñ bi mu feeñee itam wax na ci wax joo xamante ne bii wax nañ ne sax àgg na ci ne ku man aw turam saw yaram araam na safara kon loolu lu rëy la di cër boo xamante ne bii yàlla da koo cërale waa Tayba nga xay ne ñoo jur ab taawam waaye ñoo jur am caatam ndax soxna May bintu Xaadimu Rasuul Euh, waajuram moom itam Taïba xaar la dëkk kon loolu lu am solo la ah ñun nag cër boobu nga xam ne amuñu lu dul moom ci sëriñ Touba nga xam ne mooy suñ buntu Serigne Touba wala luñ mën a am moo ko gën a rëy ndax bu ne kii mooy taawub Serigne Touba xam naa bu fekkee am na koo mag itam ku jigéen lay doon waaye loolu ñu ne ci ñun la feeñ bokk ci suñu deret di suñu maam loolu ñun dañ koy sagoo dañ koy ségaréwoo waaye yow nag lii nga ci defal. dañ laa mënta fay dañ lay ñaanal rek yàlla bu seytaane am ci sab liggéey aw yoon li nga yéene yàlla na la sëñ moom Cheikh Mouhamadoul faadal jàppale ba nga am ci lu kawe sa njort ñii nag ay mbokk lañ ay taalibe lañ mënuñu dara xamuñu dara waaye bi ñu yëgee liggéey bi gëstu ko ba gis fi mu toll dañ newoon dañuy ñëw sargal la delloo la njukkal waxtaan ak yow fasent ak yow kóllëre kóllëre goo xay ne fa suñu mu doog ilal abat lii mooy suñu yéene xam naa yeneen kàddu yi ci des damay bàyyi ñi ci des àggale ko sang bi kon ñoo ngi lay nuyuwaat di la siyaarewaat bu baax xam naa dañ lay dollee ndokkeel rek comme ni ko bokk yi jiitu waxe ci li nga xam ne suñu borom moom moo la ko cërale ndax liggéey la boo xam ne képp koo xamante ni kii suñu borom dogal na mu tàmbalee ci say loxo ab cër la bu la suñu borom defal ci waaye mboolem koo xam ne ab julit nga ndax sëñ tubaa julit ñëpp ko bokk kon leeruk sëñ tubaa bu nekkee foofee yàlla defal la tawféex nga taxawu ko ba nga xam ne tey koo xam ne yaa ngi xeñtu barab ba boo ñëwee danga fekk nee mu mel loolu doon lu ñu laajte kon dañ lay ndokkeel ci cër boobu la suñu borom subhaanahu wa cërali ndax julit ñëpp nga ko defal waaye nag ñu rawat mu rawati ci ñun ñi nga xam ne ñun ñooy waa Tayba ndax ma Cheikh Ahmadou Yadali comme ni ko sëñ baala moom waxe sëñ Balla mi waxe ko noonu naka noonu euh, waajuram bu jigéen sëñ Touba tànne woon ko ci askan wi ñu bokk muy askanu ba kon su fekkee dem na ba leer googu feeñ ci euh, mu doon loo xam ne lu yàgg la nga xañtu barab ba taxawu ko ba mu tollu fee ñëpp nga ko defal waaye ñun moom jàpp nañu ñun ñoo ci raw loolu nag mooy sababu association bi nga xam ne mooy silatu rahim te sëñ kàbbu silime jiite ko nga xam ne mag ñi ñoo ko sosoon te dara waral ko lu rek bokk Tayba gi muy ñaar fukki penc yi ni nga xam ne ni la ko mag ñi fondement yi woon muy alxuraan ak jokk bokk gi loola mag ñi doon ko sàmm ba ñu ndaw ñi nag ñu ñëw gis ne ay ndaw lañ war nañoo topp ci seeni tànk tax ñu sos association boobu ngir ànd ak ñoom liggéey bi mag ñi itam nag li ëpp ci lépp lu ñu doon dox ñu jëbbal nu ko nga xam ne ndigal rek la ñuy déglu ci ñoom ñu ni sant ñu def te bokk na ci lan ñu digal mooy ñuy saytu bokk gi di ko jokk waaye mboolem koo xam ne ci askanu ba nga bokk foo mën a nekk te nga xam ne da ngaa jiitu ji ñu saytu ba xam fa nga tëdd nga bokk ci ñuy ñaanal bu dee ku ñu war a saytu sa barab ñu saytu ko loolu mooy sababu nag bi ñu gisee ne kat kii di leeruk Serigne Touba ci askanu tey ba la bokk ñu gis na kon nag jaadu na ñu ñëw ci barab bi. siyaar ko bi ñëwee siyaar yi itam ba gis na mu mel dañoo def yitte ci ne ki nga xam ne moom la yàlla taw fee tey mu def liggéey bi bala ñoo wax lenn ñu li ñu war a njëkk a def nag mooy xeñtu kooku mooy kan ba noppi jéggi ay jéego dem ba fekk ko fa mu nekk siyaar ko waaye ndokkeel ko ci lii loolu moo tax nag biñ gëstu bañ xam ne yow la moo waral sunu tànk yii kon dañ tànki ndokkeel la tànki siyaar la tànki ñaanal la itam yàlla sunu borom defal la ci tawféex ba li nga ci yéene dem ba mboolem adduna bépp gis ne rek teg nañ ci bët muy lu kawe njort yegg foo xam ne foog kawe kawe njort la te rafet nañ ci njort nag ndax liggéey Serigne tubaa moom comme ni ñu ko waxee rek euh, am man nga ne fii la tàmbalee waaye famille yam moom yàlla rek moo ko xam kon mën naa ne lii daal rek moo doon tànk yi la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla sunu borom subhanahu mu defal la tawfiq ak tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi bari lool te di leen sant te di leen gërëm di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi ba li bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp ñu ànd ko ak moom di leen nuyu ci turu sëriñ Ebo Mbacké Fallilu ak njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp ñu ngi leen ci nuyu te di leen sant bu baax te di leen gërëm ci seen tànk yi ngeen xam ni. jóg ngeen ko jëm si ci ñun ngir ak taalu bi ak feddli ko lëre ci ki nga xam ni moom lañ Cheikh Mouhamadou Fadal li tuddee muy Cheikh Mouhamadou Yadali mun Cheikh Al Khadim ñuy am mbégte lool nag ci jataay bi te di ci sant Cheikh Mouhamadou Fadal bu baax ci tur yi nga xam ni tudd na ko muy Cheikh Mouhamadou Yadali loolu ñu ciy am mbégte te di ko ci dellu di ko sant ak yéen ñi nga xam ne itam yéen ay bokkam te lépp di ñu koy delloo suñu fàllu rek muy cant geeg liggéey beeg lépp ngeen xool loola muy lu rafet lu baax bi ngeen jóg fab seen seen yitte yëpp def ko ci tey jii ngir ñëw fii siyaar siyaare si ma loola nag ñu ci am mbégte lool jataay yëpp a neex ci man waaye nag rawatina nag jataay bii jataay bii moom. jotaay yëpp a neex waaye rawatina bii ndax bii moom daa bari lu may fàttali ndax liggéey bee mel na ni ci sayir wéetoon naa ci lool waaye nag tey am naa ci wétal waaw suñu fàllu gën a ma cee wanati boppam waaw gën a ma cee wanati boppam ci lu wér loolu nag ñu ko cay delloo ak sant rek waaw te te di leen gërëm bu baax nag te di leen ñaanal ba seen tànk yi ngeen ñëwee fii ngir dundal ak bokk. sëñ bi defal leen ci tuyaaba joo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci barki Cheikh Mamadou Fadel ñu la koy ñu leen koy ñu leen ko ciy defal di leen xamal ni nag euh, lépp yétam li ngeen wax lépp dañ koy delloo Cheikh Mamadou Fadel rek ndax luñ cay def lu ne jëmm ma euh, ndax moo moo sàkk tur wi tuddee na ko ñu nit ñu fas yéene doon ab taawam bu fi ab taawam nekkoon lépp loo xam ne da koy defal ñu fas yéene ko koo defal liggéeyal ci moom Cheikh Mamadou Fadal ndax tur wi mu nu duppee ngir dundal tur wi ngir dundal foofee te it mu fonkoon ko lool am fu mu ko tegoon muy Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Yadali moomee lii sëñ bii doon wax léegi loola dina dinañ ci ñëw waaye ci biir loolu itam dañuy sant bokk yi bu baax di sant sëñ kàbbu mee nga xam ni mooy njiit li ak sëñ Modou mi ak yéen ñëpp wax ji ngeen fi wax wax ji rafet na lool te matale na tubaarkàlla rafet na lool matale na sama xol sedd na ci guy foofa nag moom liggéey bi ban ko tàmbalee yàgg na booba tàmbali bi nin ko defee mooy soxna maam Faati Mbakke mii nga xam ne mooy sama mag mi ngi ci biir moo tëdd guddi ñaari yoon géntu ñu ne ko neel Ahmadu yi daal na defar barabu turandoom bi ma ko waxee fekk boobu maa ngi la toppatoo ay tool ros ros beeco ma ni ah loola de duma ko duma ko waaj bi ñu ko soññee soññiwaat ko mu wax ma ko ma ni duma ko waaj booba amaguma lu ma ko defaree ma ni woon booba damay jaay sama oto tàmbali liggéey bi fekk booba ak quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-six laa njëkk indi sama plan kër di ko liggéey bi ma ko indee di ko liggéey ba koo liggéey ñu ne ma eh, plan kër gi xajul ci kër gi il faut nga yokkaat kër gi mu gën a yaatu ma it ma daal di dencaat plan ba bi bi bi ma waxee loolu nag ma ne nag kon li may def mooy du ma fi nekk di defar kër du ma soxluwuma ko li ma bëgg mooy defar barab bi eh, ci laa njëkk tàmbali eh, di liggéey barab bi. bi ma koy tàmbali boobu amulu ma ko liggéey fekk boobu maa ngi lijjanti ay tool nii su ma su ma commencé tool rek lu ma bay wala lu ma am rek def ko ci bi may xalaat loolu soxna si bi mu tëddaatee guddi géntaat ñu waxaat ko loolu ma ne lag léegi damay jaay sama oto tàmbali liggéey bi fi nga xamee ni maa ngi bëgg jaay oto bi di tàmbali liggéey bi sëñ Fallou gis la sama xol boole ma ak ku ñuy wax Fallou Dieye boobu moo nekkoon directeur bu Sonacos fekk nawet bi bëgg a ñëw ma ànd faak sama benn taalibe mu jox ma sept tonnes kemb bi ma ñëwee ma jaay kemb googa sanc ci tool yi yi ma nekk muy fii ci boor yi ginnaaw kër kàbbu fu ñuy wax Touba Mbodiène ma ma jaay kemb ga tàmbali ci liggéey bi sanc tool ya lu ma bay ñëw def ko ci ñuy dem ba oto ba ma doon bëgg a jaay sëñ jox ma oto sëñ Saliou yónnee ma oto bi jamono yooyu bi ma ñëwee di ko wax sëñ Saliou liggéey bi mu ne ma loolu de soo ko defee ñun nga ko defal ndax ñun la war nanga ko wax waa Mbàkke ak waa ñëpp xam ni ndax seenub cëra bi ma ñëwee wax ko sëñ mu Moustapha Fallilou mu ni ma loolu de soo ko su loolu neel taalibe yi lu ci waay def mooy sag defaru tey ak ëllëg noonu la ma ko waxee ma ma waxee ko noonu taalibe yi euh, sëñ Fallou moom kenn wérantiwul ni mën na kanam ma mën na gannaawam ndax yéene dama amoon te yoruma lu ma ko liggéeyee mu xam la ci sama xol mu boole maag turandoom Fallou Dieye mu jox ma loola ma sanc tool yi jaay kemb ga tàmbali ci liggéey bi lu ma lu ma liggéey ñu jox ma so quota so ko sim lu ma liggéey def ko foofee ca barab ba noonu laa doon liggéeyal lépp nga xam ne dañ ko lépp dañ koo kule eh, loolu lépp itam ma ne ah sëñ Fallou ma dimbale rek ba awale ma ci aw yoonam ba nga xam ni noonu la tàmbalee woon moom it ndax ba mu jógee soxla wutoon kër soxla wutoon dara lu dul liggéey sëñ Touba bii muy jumaay Touba jii lu mu am ci la ko def këram ba mu koy miire dañ ko ko miireel waaye biirelu ko boppam ma xam ne loolee nag la ma sëñ Fallou dimbalee ba def ko ci sama xol bay mayit it soxlawuma kër soxlawuma dara ba fi may wax tax ni awma kër Touba la ma am foofa laa ko def di fa def kër itam ngir bëgg dëkk foofa kër ga ma fay def xam naa ni eggu leen fa waaye ma nga fa ma ni nag yoon wa sëñ Fallou awoon man dama ko rafaatale rek def ko ci sama xol eh, fii ci Touba. aw ma fi kër waaye sama sama daara ma nga foofee ca Mbodiène Touba Mbodiène sama waa kër ñu nga foofa muy génn kër ca àll ba daanaka fa laa ëpp lu may nekk foofa laa ëpp lu may nekk ma ne nag loolu lépp itam ah sëñ Touba eh, sëñ Fallou ko def sama xel ndax sëñ Touba da leen a waxoon ni leen na ngeen génn Touba te kenn ku mën a sanc sanc ku mënta sanc am koo bokkal sanc su àjjuma jotee ngeen di jóge foofa di julli si Touba te génn Touba ba tey loola sëñ bi def ko ci sama xel dimbale ma ba loolee leen sëñ Touba digaloon. mu sanc ndindi moom suñ Moudou Moustapha sanc tindoo di ñu def noonu ba ñu doomi sëñ Tuubaa yépp kenn ku ne amum pénc ah mayit man it xam naa ni lii la ma a sëñ Tuubaa sëñ Fallu rafaatale def ko ci sama xol loola ci laa tàmbalee liggéey bi suñ Fallu moom kenn ku ne xam na ni mu fonke woon sëñ Tuubaa ba fu daray sëñ Tuubaa nekk lu ne loola dana ko feeñal ba ñëpp xam ni loola feeñal na ko ndax moom fa mu tegoon sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ab xolam ci sëñ Touba ndax moo ko waxal boppam ni sopp gi mu sopp sëñ Touba doy na ko muy sopp keneen ku dul moom ndax sëñ Touba dafa ñëw fekk diina rab mu yeesal diina ba yi diine mel ak jant te dootu rab noonu la ko def def koy way jaay ak njureelam jënde ko ak taalibe sëñ Touba nangul ko ko mu ne ko ba mu ko nangulee mu ne ko defaat naa ko addiye ndax kuy jaay ba jaral da nga da nga da nga am da nga ca am bénéfice am ca leneen lool lépp nag da ko boole joxaat ko sëriñ Touba addiye fedd fedd lawaat ak laxasaay loolu moo waral tur wi foofee itam ki nga xam ne moom laa ko doon defal muy Ahmadou Yadali ak sëñ Fallou lu ne wan ma ko fa waaw lu ne wan nan ma ko fa ndax jamono yi nga xam ni ñaa ngi tàmbali liggéey bi booba nawet baa ngi bëgg a ñëw booba muy bëgg a taw fekk booba bi muy bëgg a taw benn photo sëñ Fallou bu nekk sama nekk ma jàkkaloo photo bi ne ko Mbàkke yaa may liggéeyloo te doomi sëñ tubaal lay liggéeyal téyel ma taw bi bu barab bi tawte mu bañ a taw ñu toog lu yàgg taw bi tay ñëw wutul sëñ Fallu tawut waaw ba sëñ Saaliwu di sàkkalu sarax ni nan yóbbu dugub ca penku jumaa ja ngir ñaan mu taw ndax taw bi daa tay ñëw bi nga xamee ne loolu am na mayit sama xel fekk ma nekk ndakaaru sama xel ni yar ci la ma doon ñaan sëñ Fallu ma jógee ndakaaru jaar ci sëñ Sulay Gay bu njaarim daa fekk ma maçon bi dama ko woo ba mu ñëw ma ne ko loo ma wax danaa la ko indil mu ne ma ay juróomi téeméeri tibb ngay indil xam nga maçon moom boo ko dee fay rek day bëgg xaalis ba di gën a yokk ma ne ko loo ma wax rek danaa la ko indil waaye waaye li ma su ma sañoon barab bi du taw tawte lenn nag mën naa am mën nañoo téye taw bi ba ba mu bañ a taw su barab bi suñ téyee taw bi mu tëye taw ci yow la su barab bi taw tawtee ci yow la te ñaar yooyu moom lenn dana ci am waaw danañ téye taw bi wala barab bi taw bi loolu laa ko njëkk a wax daanan fa nekk di liggéey ba 9 ci guddi may taal sama oto oto bi rëlanti daanan fa nekk di liggéey ba une ci guddi sama oto di ralenti may taal oto bi foofu sëñ bi war na ma fa kiimaan yu ne bi nga xamee ne loolu am na ma jaar ci sëñ su lay nettali ko li ma wax ak mason bi daal di yéene mbàkke takk ay rajo ni leen ak naa ni ko alxames dama bëgg ñu ñëw dee décoffrer barab bi suñ ko dee kofre bu subaa ci ajjuma ji ñu muy bisub alxames bu subaa ci ajjuma ji ñu ñu dase fa ñaan jàngi kaamil ñaan mu taw bi nga xamee ni moom jóge na njaareem ñëw ca barab ba ma it ma bi ma yéene loolu ma daal yi togg samay añ ñëw ba barabu sëñ Fallu egguma ca ba sukk ni ko mbàkkee li nga ma doon defloo egg na li ma soxla mooy ab taw tey tey tey bi nga xamee ni jàng nañ ba bu ma ubbi sama néeg taw bi tàmbali di taw di taw ba lóor ma ne ko mbàkkee mu lóor leen bëgg mu tàmbaliwaat di taw keroog damaa fanaanee jooy ba bët set ma ne leen man duma ma wàll yi du ma dara xaw ma lu ma réere biig waaye nag taalibe laa boo xam ne damay liggéeyal sama sëriñ muy sëñ Fallu gis na la ci sama xol loola ci la ma mayee lii tey it nag loolee mu loolee ma mayoon ba fi mu nekk nii ba fi mu nekk nii loola ma mi ngi feeñ ci jëmm ci mi ngi ma koy defal barki sëñ Fallu waaw su ma soxlaa mu taw mu taw te loolu jëmmi sëñ Fallu rek ak ki ma ki may ki may liggéeyloo ak ka ma koy liggéeyal muy Seex Mamadu Yàllaali waaw ci laa amee loolee waaw boo gisee ma nekk ca àll ba nekk fa man dong muy sama muy mu euh, muy génn kër ca àll ba. la ma fa sëñ fallu di wan ci nawet yi ak leneen moo ma bàyyi foofee waaye du leneen fii Touba mën naa fee dëkk am fi kii waaye la ma njëkk am foofa laa ko def ngir ngir la sëñ Fallou wan nga ma fay wan boppam ci ci ci loolee te ci lii laa ko amee mu ñu tegaat ci tuuti muy muy taw boo xam ne tawub ëgg la ma ni léegi rus naa ko ñaanal sëñ fallu li may def mooy borom barab bi laa koy ñaan dem siyaar ko ba noppi bi ma dëppee bay bay bay bay bay génn rek taw bi tàmbali taw booba da doon taw tawub ëgg boo xam ni dañ ne woon taw bi dana yàq nawet yi waaw wóor na sëñ Fallu ak ma gisee mu ma xëy am loolu noonu la ma ko sëñ Fallu di defale waaw am na ci yeneen yoo xam ne sax mën naa koo nettali ci ci yeneen yoo xam ni eh, sama digg ak sëñ bi la waaye jëru ko waaw jëru ko jëru ko waaye sëñ Fallu moom eh, eh, duppee gi ma duppee Ahmadou Yeddaali man dama cee sant dama cee sant bopp ndax li ngeen wax waa kër sëñ Tuubaa ni ko ci mbëgg bariwul soo demee ci sëñ Moussa Ka def mooy Mouhamadou Kabir Mouhamadou Yadali sëñ Modou Moustapha waaw Mouhamadou Kabir moom it Mbàkke lañ ko denc eh, ci boor yi eh, boo boo jëmee ci stade bi rek foofu côté foofu foofu lañ ko denc Cheikh Mouhamadou Yadali moom ñi nga xam ne daal ci ci taawu sëñ Touba ñi nga xam ne bi ñuy ñëw indaalee na andaale nañ fi kii tam dund lu yàgg moom moo fi taawu sëñ Touba kooku nag man bu ma ko duppee man. damay sant lool damay delluwaat di ci santaat sëñ Cheikh Mamadou Fadal te li nga wax ci tur wi léegi itam sëñ Fall wax na ko ndax soxna jumaa bi mu yóbbee sëñ Fall di ma ko wane sëñ ko kama ko tuddee muy Ahmadou yi daali di bu dundoon ñun ñii kenn duñ xam loolu la ko sëñ Fall wax ni ko su dundoon ñun ñii kenn duñ xam am beneen mbàkke mbàkke bu ma nettali ni ma keroog bi bi soxna si génnee daa fekk may dugg si yow ngay génn si mu ne mu ne ko kooku nga taseel di ko mën aw turam eh, sa yaram araam na sawar waaw te loolee mu ma wax de sëñ Touba fee ma nekk ca France wóor na sëñ Fallou feeñu na ma fa wax ma loo xam ni loola ci la bokk waaw kon nag man damay santaat sañ bi rek xam ni man la ma ci sëñ bi defal man xam naa ko te jàpp naa ko sëñ Fallou xam na ko te jàpp te te moom te man maa ngi ko ci sant waaw kon nag liggéey bi moom noonu rek la demee eh, Cheikh mu Moustapha Fallilou li ngeen di wax moo Cheikh Mouhamadou Yadali mi ma tuddee ba ma koy tudde boobu maa ngi ci daara ji mu taal otoom ba mu ñëw ma génn mu ni ma tudde naa la doom jox naa la ko bi ma ko joxee ma daal di ko ma daal ko yóbbu ci sëñ Souleye Gueye Ndiaré muy jàng ak ma di yeddaali mi ngi ñetti soxna mi ngi ñetti soxna keroog ban koy tudd dañ koo tudd tuddee ko sëñ Fall mu ni leen dem leen tuddaat ko Ahmadou Yeddaali laa leen wax ngeen tuddee ko nga xam ne ñaari yoon lañ ko tudd waaw ñaari yoon lañ ko tudd waaw mu tuddee ma ko jox ma ko waaw loola nag ko defal ku ne ah euh, nga koo sant. ndax aw tur mooy loo xam ne du fay ba mukk waaw te samay maga ngi fi ñeneen a ngi fi te loolu amuñu ko ci moom kon nag man su ma demee ba am ko ci moom damay wëlbatiku di ko santaat tey ñaan sëñ Fallou mu yokk ay leeram defal ko lu mu bëgg defal ko ak njabootam ci barke Cheikh Mamadou Fadal waaye sant nan bu baax seen tànk yi daal bég naa ci lool am naa ci mbégte lool nag ndax jataay bu mel nii dafa utu muranke woon ci man lool sama ginnaaw sax bari na ci loo xam ni ay lëj dafa am ca barab nga xam ni sama ginnaaw maire ba fa nekkoon dafa am yu bari ay yu mu fa joxe woon sama gannaaw loolu ban ma ko joxee léegi ak ba ma ko liggéeyee ak miir ba ma fa def ak la ma fay def ba ma ko tàmbalee di def kër mat na daanaka booba liggéey bi tàmbalee ndax la boobaa léegi war naa mat ñaar fukki at ak lu tegal eh, sama ginnaaw bi ma demee France nag xam naa ñoom it ñu am lu ñu fa joxe woon ba ba ba foofee sax ci boori barab ba sax da ngeen fa gis garab yu ñu ak miir bu loolu lépp maa ko fa def xam ni. ginnaaw sëñ Fallou dama ko tuddee te doomi sëñ Touba yëpp am nañ pénc mu fas yéene doon ab taawam fu fu lu ab taaw di defal euh, waajuram mayit ma defal ko foofee fas yéene doon ab taawam fas yéene eggale yéene sëñ Fallou na sëñ na na doomi sëñ Touba yëpp def ba am pénc moom it mu wutal ko am pénc wutal ko fa kër ñëpp xam ko ñëpp xam barab ba di ko siyaare keroog bi ñuy tekk xeer wi itam la ma sëñ bi wax mooy loo ci fas ma ne ko soppi ko senegal ak nawet yi nongo te loolee itam sëñ Fallou defal la ma ko ca waaw barab ba boo boo ko laajee waa Njaayeen maanaam fu ñu bëggee nawet bi dox sax dañ cay tàmbali dara di ca def dara su ko defee taw bi teel nawet yi baax fu ñu fu ko fu ñu ko laalee fu ne gis jamono ji daal di soppi waaw loolu ñoom matuma ci seede waaye ña fa dëkk mën nañ ci seede waaw ñooñu moom mën nañ ci seede foofee itam su benn was waxtu saa jot dañ fa daan dégg ay jàng ci guddi gi am na ndaalu fa nekk loo xam ni soxna fajja la fa nekkoon moo ko fa njëkkoon a def tabax ko fa ndaaloo la saa yoon ko mësaa duy day jeex am benn bis taalibe bi ñëw di ko diisi ñëw fekk fa lu mel ne ndox suuf mu beesu boo fees del mu ñëw mu ñëw wax ko sëñ fallu mu ñëw wax ko soxna fajja ni ko man loolu laa fa fekk mu ñëw mu ne ko demal ci sëñ fàllu wax ko ko mu ñëw ci sëñ fàllu mu ne ko soo demee waxtu wa ko daan duy ko fa duy waaye waxtu guddi bul faa demati wax waxtu wa ko daan duy dem fa di ko duy boroom nga fa fekk waaye waxtu woowu bul ko fa demati bul fa demati loolee ba tey jógu fa bu njëkk barab ba suñ masaa tëdd ba guddi foofa da daan leer naññ xanaa léegi rek la bi nga xamee ni sax nit ñi xam nañ ko waaye man ba ma fay ba ma fay ñëw di ko defar ay salaan laa fa fekk ak ay jaan ñu gor ko defar ko daane tabax ba tàmbali liggéey bi waaw loolu laa fa fekkoon ah, ma xam ni nag bu ginnaaw moom yéene sëñ Fallou la ñuy eggale dara mënu koo tee egg. te it lañ ci bëgg rek la sëñ Fallou def loolu moom amu ci lu may werante waaw kon nag am nañ mbégte lool ci seen jataay bi waaw sëñ fal lu gën a ma cee wanaat boppam ci bi ma ñëwee xat-xat ya ma fa fekk ak la ma fa fekkaat dem ba yéen ñi ngeen gisaat lii lépp léegi laa koy kii sama euh, sëñ mu Modou Moustapha Fallou laa ko tudde sëñ Modou Moustapha Fallou laa ko tudde mooy sëñ Modou léegi laa koy nettali fii ni ko waaw waaw ñoo bo waaw ñoo bokk turandoo waaw bi léegi laa koy nettali ni ko keroog bi may dem nuwaak suut di seet seeti Ahmadou Yadaali mu mag ma min tuddee mii nga xam ne ci daymaan la bokk ci wàllu yi la bokk keroog ma ne ko bi nga xamee ni maa ngi ñëw maa ngi dem Ross Béthio te safaak sëñ Mourtala mu mag mu dem a xaar far yàlla dogal ma dem ñu wax ma ko ma ñëw fekk mu jël bato bi dem bi ma jëlee bato bu may fi mu toogee ci bato bi ci ci looco bi ñu ma dem ma jëm ak suut am ku ni Ahmadou Yadaali daal Gidali la wax ki ma àndal muy wax maam Góorle ma ne ko dem nga xool ko ba xam kooku de ak Ahmadou Gidali lay wax mu ñëw woo ko mu ne ko kee day dafa tudd Ahmadou Gidali moom laay woo ma woo ko ba mu ñëw mu ñuy waxtaan ma ne ko man Ahmadou Gidali mu mag ma laa bëgg a xam fan la nekk ba ma dem ma man koo siyaare mu ne ma ah xaw ma ko de xaw ma xaw ma fa nekk waaye dinaa la boole koo xam ne soo fa demee ci nuwaak suut dina la wax fa mu nekk bi nga xamee ni dem naa ba ba gis kooku Ahmadou Gidali wakil lañ koy wax. mu abal ma benn oto ah, ma ànd ak ay naar ak ay taaliba foofa dem fa waaye bi ma demee kooku xur bu ne xur wax tënd ak xur bu ne wax euh, euh, damay fàtte tur bi nu mu tuddati waaye ci ci ci Mauritanie la nekk bi ma ko siyaaree ba noppi xam ni kooka du mu mag ma waaye ma ñëwaat waaw waaw mu waaw tëndax yi waaw bi nga xamee ni ñëw naa bi nga xamee ni ñëwaat naa ma toogaat dem ci seen fi ñu def seen téere yi seen ah euh, archive yi waaw ba gis fa Ahmadou Yadali ay jaar-jaaram ak ab téere ma jël téere ba di ko liir di ko liir ba gis Ahmadou Yadali mu mag ma fan ko denc ba xam fan ko denc ak ay sëtam fan nekk ma it euh, ma daal abaat beneen naar oto mu abal ma benn oto ab 4 x fekk boobu man oto bi ma yoroon oto bu ndaw la bi ma bi ma jógee foofa ma ànd ak ay taalibe ànd ak ay naar ñu dem ci sëti Ahmadou Yadaali bi ma demee maa ngi leen fekk ñuy jàngi xasida yi sëñ Touba bi ma leen nuyee ñu ne xayratu sëñ Touba ci suñu kër ma ne leen nag nettali leen fi ma bëgg a dem muy Ahmadou Yadaali mag ma ngir ñoom ñu yóbbu ma fa ñu ne ma waaw dinañ mën a ànd ak yow yóbbu la fa waaye foofu moom sori na kenn kenn dëkkatu fa maanaam xam nga naar yi ñoom daanaka fonk nu dañuy bàyyi noonu rek dañ koy bàyyi noonu rek. mu ñu wusee ci àll bi ba bi ni ginnaaw bu ñu julee timis la ñuy door a egg ca barab ba ma siyaar ko ñaan fa yàlla dogal bi ñu dëppee ma koy nettali sëñ Modou mi ne ko suñ oto bi kërëwe te ñoo ngi ci àll bi te amuñu si pënu secours ñu làmb pënu secours bi pënu secours bi kërëwe ñun ñu daal di dindi oh, pënu secours bi def ci am ñax ba ñax mi ba mu fees dell ñu duggaat ci oto bi ndànk awaat ci weneen yoon yàlla dogal ñu dox tuuti ay kilomètres ekk ci benn euh, këru benn këru naar ñu daal di nuyoog moom ñu ne ko kii nag sëtu sëñ sëtu sëñ Touba la mu ne xëyartu Cheikh Ahmadou Bamba ci sama kër daal di nuy daal di nuy rayal ay gàtt ñu fanaan foofa toog fa mu daal di abbi pompe ñëw ñu defaru sekur bi ñu pompe ko mu baax ñu awaat foofa ñëw euh, ci sëti Ahmadou yi daal fan leen jëlee woon ñu wàcce leen foofa bi leen wàccee foofa ma it ma jógee fa daal di ñëwaat nu waak soon ñu jox ma fa téere Ahmadu Yadaali yu bari ak téere bi nga xam ni eh, sëñ Tuubaa moom ci ak baaxam da daan fekk ñu baax ñooñu téere yan war ya nga xam ni dañ koo taalifoon mu taalifaat ko ay taalibeem di ko jàng yool ba di leen fekk foofee ndax lam ca man keneen mënu ko looloo waral eh, téere Ahmadu Yadaali boobu nga xam ni salaatu rabbi xalaa bii bi xayril anam nga xam ne boo koy jàng day mel ni ne eh, bu ngay jàng day mel ni mu wax yi bu ngay jàng keroog bi mu ñëwee di ko wax sëñ Saliou la commencé tari bi daal di ni ma bi mu doonee tur tànk la mokkaloon téere bi waaw daal di lépp moom eh, yëfi yëfi sëñ Fallou rek eh, daal man sant bu baax santaat naa sëriñ bu baax kon nag lépp moom dañuy delloo sant gi sañ Fallou rek tey ñaan seen tànk yi daal mu doon tànk njëgal ak tànk xiwal ah te foofee itam. gën na noo xam ne sëñ Fallou gën na noo nanguwaat liggéey bi nangul nanu ko te firnde ji itam seen liggéey seen seen jëmm yii ci la bokk waaw ndax su ma ci demee ba am ci jaaxle rek mu wanaan ma ci loo xam ne loola day di gën a dalal sam xel te lii ci la bokk jataay bii ci la bokk waaw kon nag yàlla sëñ bi faj seen aajo bala borom barab borom borom barab boobee muy Cheikh Mahmoudou Yadali lëm ëmb mu imbil nu ko ci barke mu Mahmoudou Fadal te moom kat Serigne Touba daana wax naa si Ahmadou yi dama noppal ndax fu ma liggéeyee ba def fa wenn yiw su ma ñëwee danaa doo fa dana fa dolli juróom-ñeent muy fukk dellu wax ni dafa amoon ay ay ñoo xam ni ci ay bokkam dañoo teel a nelaw bu bëgg leen a ràmm moo tax ak teelam jógee fi te dafa bëggoon su dundee sawar a gent te yàlla du bind di far looloo taxal ak teel fa ak teel fa ak jugéem ak teel fee jugéem loolu loolu sababam loolu ci la bokk bëggoon su dundee sawar a gent ak itam ñoo xam ne dalee na bëggoon a xettali ëllëg loolee bokk na ci li tax mu teel teel a jóge àdduna te it koo xam ne itam su dundoon kenn du ko xam fu suñ Tuubaa defee ni yow su ñëwee fekk mu dolli fa juróom-ñeent kooku moom ak dundam du mën a euh, defe naa ni du mën a sori ci saayir ndax la mu waroon a def lépp def na ko waaw kon nag dañuy sant sëñ Fallou rek waaw tey ñaan mu jàppaleenu te jàppale taalibe yi te jàppale Sénégal te xéwal yi ñëw ba ñëpp yëg ni foofee ñu ngi koy liggéey ci barke sëñ Fallou la ma ca doon tey jii ko gën a fas soppi ko Sénégal ak xéwal yu waaw euh, te te it mu feeñ ci senegal gépp rek ndax xam naa ni kookee la ki ma koy ki ma koy defal ak ka ma koy defal ñoom mën nañ lu ëpp lool waaw waaw mën nañ lu ëpp lool waaw sëñ bi def jàmm xiiwal rek waaw te ko taalibe ñëpp rek waaw waaye foofee daal xam naa ni man lu ma fa mas a fas ak lu ma lu ma fa mas a ñaan giñ naa sëñ Fallou Mbacké ni gis naa ci ba kaw ci kaw sama njort sëñ Saliou dama daan wax naa ma liggéey bi maa koy eggale ma di ko daw daan wax naa maa koy eggale ma di ko daw ndax la mu bëgg laa bëgg te ñooñu gën a jege sëñ Touba nu gën a jege sëñ tubaa bu doon doylu doon am ñu doylu waaye may damaa fas yéene fab sama ñaq di ko ca def ndax lu leew laa cay def te dama daan fab sama sama oto lonk ci juróomi machine di ko kondiral sama bopp suba ba muy di jot ma ma ma wàcc su ngoon jotee ma wàcc lu ma am def ko ca barab ba muy lu lew doom waaw noonu laa daan doxee ba sañ ci tool yee nga xam ni oto ba ma doon bëgg a jox sëñ Saliou jëndee na ma fa ab oto jox ma ko yónnee xaalis jox ma ko keroog dama ne dama koy delloo xaalis bu ci egg ma ne naa ko naa ko ko ci defal waaw waaye moom dana moom dama koy eggale waaye nag eh, ñoom dañoo wan a yoon ndax dañoo liggéeyal sëñ Tuubaa te suñu xëyee itam kenn ku ci gis eh, eh, seenu sunu seenu seenu taalube ak seenu bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa suñ ko nattee ci sunu sunu taalube xeeb suñu bopp léegi nag loolu boo ko gisee ci say ñu ñu ñu doxee noona ah yow nag da xam ni am nga ngërëmul sëñ bi rek moo la jik waaye du la neen ndax soo ko xësee am la ngay soxla lépp moo li wuti waaye doo ko wuti te sëñ bi lam doon may jugu fi te du fi jóg te ko ko sàkk na ko sunu maam yi doon sàkku am ko waaw sëñ bi moom yëbbul dara waaw te sëñ Fallu itam man na kanama mën na gannaawam lam doon wax naa dañ ne sàmba du mën kanama mën ginnaaw waaye seen sàmb mi bokk ci mën naa sama kanam mën naa sama ginnaaw man loolu laay noonu laay dundee taalibe yi ma àndal rek loolu laa leen di wax néew leen dox leen ma dem fu ma teggi sama tànk soo ma fi jógee teg leen fa seenu tànk waaw du ma du ma kenn du ma sonal kenn yàkkamtiwu ma dara itam lu may ñaan sëñ Fallu itam taalibe yi rek a tax ma di ko ñaan waaye du sama jëmm ji waaw kon taalibe yi rek laa ciy fàggul kon nag yàlla na sëñ bi faj ajo yi defar lépp rek ci barki sëñ Fallou sama xol sedd na guy am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem santaat naa ci sëñ bu baax ci seen jotaay bi jërë ngeen ma ne dama ciy yéene ñëpp ndax ginnaaw nee na lu ci waaye def mooy sag defaru tey ak ëllëg waxe waxewu ma ko noonu te du ko deenal loolee eh, dañ koy yaatal ci taalibe yi ba ñëpp mën cee def seenu ñax ndax wàññiwul dara wàññiwul dara ah, seenu defaru rek waaye man bu ma ko bàyyee woon itam ma def ko waaw te duma ci du ci xaar kenn ndax su doon looloo kon ba ko sëñ Saliou bëggee defar ma wax ma ma ma ma ma ma ma ma bàyyi ko mu def ko wala ma ne ko wax ma waa Europe ma dem fa wax yëgal ko taalibe yi ñu def ko waaye ban ma joxee rajo bi jox ma lépp sax yëgaluwuma ko waaw ngir bëgg caa def sama ñaxu bopp looloo taxoon wu wuwuma rajo bi wuwuma kenn dama ko def ci sama yëfi bopp yoo xam ne rek man loola maa ko war a def di ko def waaw noonu rek laa ko laa ko jàppe woon waaye su ma su ma neexoon wër Europe wër Sénégal woo ci taalibe yi ñu daal di koy defar boppa mu egg bu yàgg waaw waaw loolu moom awuma ci lu may werante moom waaw su ma neexoon wax ko ñëpp ñu def ko ndax kenn ku ne bëgg nga liggéey Sëñ Tuubaa te loolu ci liggéey Sëñ Tuubaa ci la bokk ndax taawu Sëñ Tuubaa fu mu war a nekk waras na koo def ba ba ba mel ne barab bi barab yëpp ndax doomi Sëñ Tuubaa yëpp am nañ pénc am nañ kër waaw defar nañ fan nekk itam waaw ba keroog ba may jël plan bi ci ci sëñ Modou Abdou Khadir di ko liggéey dani ma barabu sëñ Abdou Khadir bi 60 millions laa ci ñàkk da koy def loolu ma demaat man du toll ci jàkka ju du toll noonu xam ni man defuma sëñ Fallooy def waaw defuma man du sama ngóora du sama dara sëñ bi moom bu lay liggéey loo day fay day féete woo ba jox la ndam li waaw may it man may nag ma xam ne man man defuma man sëñ Fallooy def mooy may ma da yokkaat ci lu toll noonu waaw ma yokkaat ci lu toll noonu nag noonu rek la tëdde waaw noonu rek la tëdde bokki julit yi bokki taalibe yi lii ngeen li nga xam ne moom la sang bu baax bi wax muy Cheikh Ahmadul Yadaali moom Cheikh Ahmadul Fadal ibnu Xaadimu Rasul ci li nga xam ne moom la ko yàlla taw fee xale muy barab bi nga xam ne mooy barabu turandoom yàlla xeer ko ci eh, ak yëg-yëg ci am ci ni mu ko waxee ba tax mu song ko di ko liggéey xaaru ci itam kenn ñaqu boppam la ci da ciy def te bay di ci def lu ko yàlla wërsëgale mu def ko ba léegi dégg ni mu ko waxee kër sax bàyyi bàyyiwul boppam kërug bo boppam sax bàyyiwu ko xel waaw talu ko. lim tal rek mooy barab bi ginnaaw na xaaru ci kenn moom ànd ak loolu lépp képp koo xam ne ab taalibe nga di ab julit li leeruk Serigne Touba la ñëpp ni ma ko waxee rek ñëpp ñoo ko bokk képp ku di jullit rek am nga responsabilité ci loolu kon war ngaa man a ñëw ànd ko ak moom waaye bul xaar muy woo kenn ndax ko ko ci xaar xëy na euh, doo dégg masa woote da ci nekk rek ba kar ko suñu borom di yeggale te gis ngeen liggéey ba fa mu toll jàmbaar la ci lool muy liggéey bu am solo boo xam ne gis ngeen ni mu ko tabaxee tabax bu mucc ayib boo xamante ni bii bu dëgër la boo xam ne bu méngoo ak jamono la ànd ak jàkka ca wet ga itam waaye Euh, des na lu baree baree bari ndax euh, nee ma ko tàmbalee ak nee ma ko yéenee xaalis bu baree bari moo ko war a mën a yeggale waaye nag xaaru ci kenn euh, passa su boppam rek la ciy woy waaye koo xam ne daal gis nga liggéey bi fi mu toll nañ xam ne ñëpp am nañ ci responsabilité lépp lu ci waaye man rek nga ñëw barkeelu ci ngir yàlla ak Serigne Touba xaaru ci nag moom kenn wootewu ko defu ci lenn waaye nag ñun ci sunu turu bopp ñun ñoo koy wax ngir xam ne ay taalu bi lañ te eh, ne ko sëñ Modou Moustapha Fadilou waxee woon ne lu ci waaye def mooy sax defar adduna ak àllaaxira loolu itam sax bàyyi na xel wax jooju ba tax na mu wax ne loolu kon mënu koo neenal ba lu ci waaye joxe it ko ci defal waaye woowu ci kenn nag moom bàyyiwu ci xel kenn doole boobu rek la ciy wooye loolu mooy li nga xam ne mën nañ ci doon dolli wasalaamaaleykum wa rahmatullah